waaw waaw. je t'aime comme le poisson aime l'eau. mbir <laughs> loolu. j'ai envie. épousez-moi. ayca léegi iPhone 11 bi. waaw kontaan nga ci de. kontaan naa moom. Mhm. kontaan naa waaw ñëpp. ñu ngi lay fay ñu ngi lay kenn di leen ziar aussi. di leen wax daal kontaan naa. Eh. <laughs> kontaan naa trop da ngay woote ci émission Saliou. waaw damay woote foofu lu bëri moom man moom audi auditrice am laa damay woote xam na ma et tout mooy damay woote sax si ñoom aliment ñoom Cheikh Sarr. Mhm. aussi de télé bi tamit damay woote ah. Mhm. man moom dama yenn saa damay jël rek di woote. daal D-Média nga quoi bu ma duggee bu ma duggulee. nga yow waaw dama koy déglu et. daal jëndal beneen iPhone. baa ngi nii ak ci dem yëpp a ngi nii. gis nga téléphone baa ngi nii. accessoire bi chargeur bi écouteur yeeg yëpp. Mhm. moo ngi ci. a ah, vraiment kontaan naa j'ai même pas les mots et mm-hmm. parce que Zik FM daal ak D-Media daal doxuñ si dalay naxe. déedéet leen bu ngeen duggee bu ngeen duggul yëpp seen numéro affiché na et tout. Mm-hmm. ngeen man lañ leen woo à tout moment ngeen gagné. déggal loolu daal. biñ la woowee ni la biñ la woowee ni yow lañ may iPhone bi loo yëg. lan nga njëkk a kontaan tellement que da nga yuuxu <laughs> noo ñu biñ ñu rek noo def. dama sa télé nga seetaan. Mm-hmm. def nag bi appel bi duggee noo def. maa ngi ci biir man maa doon seetaan Novelas. noo jubilé ah, noo <laughs> kontaan kontaan tellement depuis depuis jour boobu ba tey ma kontaan. boobu léegi de ah bi yaa ngi nelaw normal est-ce que. boo ma ko woon da ngaa jot. bi ma woowee na ma jàppal euh, kii télé bi ma jàpp ko mu nekk en direct et dama kontaan et après ma woo sama yaay sama famille et wax leen ko. naxe ñi fiy liggéeyee du naxe. boo euh, ci am jàpp parce que ñoom lu ñëw ñu ànd ak ñun. même emploi yi askan wi ànd ak askan ouverture noonu. dañuy ànd ak ñu daal ñu ànd rek yàlla dafa leen jàpp. ba pare fidèle. moom laay jàpp sax. te loo ci xamul fii tur bi lan la sax. Fatou dañ lay jox sa iPhone 11 ba pare booy dem ñu boole la kenn mu gunge la. waaw dëgg la ah, non non man la man man. Michel. dimbali non non waa plateau bi. maa ngi nuyu ñëpp. waaw ñu ngi lay fay. Michel ma gunge la ko. ma taxawal fi nga taxaw gàttalul ma faatu foofu. luy loolu euh, nga dem premier ci Seynabou mu déchargé la rek nga ñëbbi. du noonu. day rien. bëgg ay gunge. pourtant xam nga Seynabou fi mu nekk est-ce que te mu réer booy. <laughs> xam nga bureau Seynabou am nga carte su duma ñëw su duma ne ibbil ko. na nga bëgg daal ibbil ko. bay bay rek leen bay. bu ko bëggoon a rek. ah ne la maa ngi koy gàtt. ay <laughs> te mi noonu xam ngeen ne ñu lu ñu digaaleeg euh, askan wi dañ koy def donc digaale woon nañ fekk yéen par en or may ko iPhone 11 bii mooy 3 ou 4e bi nga xam ni. mi ngi dem ci plateau euh, rendez-vous bi donc wéy leen di woote ci numéro serveur yi pour mën a am ci xewal yi nga xam ni